mbokk internet yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar député assemblée nationale bii di Guy Marius Sagna nag tey mu jàndoo ak taskatu xibaar yi mook Seydou Gassama njiital Amnesty International bu section Sénégal ñoom nag ña ngay vilipande li nga xamante ne bii moo xewoon fii ci biir réew mi nag di Sénégal muy manifestation yi nga xamee ne amoon na fi ba génn loolee nag la jëyee ja ci am jëpp ñoom ña ngi koy yëkki ni ay kàddu ginnaw bi nga xamante ni bii nag ña ngay jàndoo ak taskatu xibaar yi ña ngay wax ne li nga xamee ne moo fi xewoon nag ci jamono jee jàll di ay rey yoo xamante ne bi gis nañ ne askanu Sénégal jàpp nañ leen tiir leen ay bal ñu daal cay ñàkk seen bakkan ci manifestation yooyee ak ñi nga xamante ne bi nag teg nañ leen ca loxo lu toll ci ñetti téeméer ak lu topp ak ñi nga xamante ne bi nag jëlee nañ ci ay gaañu gaañu loolee nag ñoom bi nu janloog taskatu xibaar yi loolu lépp nag yëkki nañ ko naka ay kàddu jëmale ko ci askan ngir wilipaane li nga xamante ne mooy yore nu Macky Sall ci biir réew mi ndaxte kat ki nga xamante ne moo di député bii di Guy Marius Sagna mi nga xam ne nag ne képp koo xamante ne da ngay waxal yàlla xam nga ne Macky Sall nii mu yore euh, nguur gi ci biir réew mi xam nga ne du dëgg du yoon ndaxte kat bundu xatal gi nga xamante ne mu ngi koy bundu xatal lenn ci journaliste yi di ko bundu xatal lenn ci politiciens yi te lépp nag teg ko ci lenn lu du dictature ki nga xamante ne bi nag moo ko xam ne di Guy mari Sagna boobee nag la daal di prof ndool la wax ne am na ay manifestation yoo xamante bi ñi ngi ko doon waajal euh, ki samedi di ki suba ak dimanche ca buntu kër ki nga xamante ne bii nag moo di Ousmane Sonko la waral loolee nag mi ngi xamle ne. mooy bokk na ca euh, signalu Walf TV bi nga xamante ne bii nag dagg nan ko ak li nga xamante ne bii nag mooy jàpp nan ko ci ay euh, politiciens ak ñi nga ne rey nañ leen ci manifestation yi ak ñi nga xamee ne gaaj nañ leen ci manifestation yi li nga xamante ne bii daal moo di nguuru Macky Sall ni muy doxalee ci biir réew mi naqari leen looloo waral nag nee na ñu déposé nag li xamante ne bii mooy seen ab ngir daal di def sa seeni manifestation niki suba nag ca quinze heures ba timis waaye dimanche yi niki euh, dix heures lañ koy commencé ba tisbaar loolee nag nag ñoom ñii di waa eh, eh, eh, FRAPP ñoom ñoo ko xamle ànd ko Amnesty International ak li nga xamante ne bii nag moo di Pastef waa Yewwi Askan Wi loolee nag ma parce euh, manifestation boo xamante ne bii marche pacifique lay doon manifestation boo xam ne lépp ci kaw jàmm lay lale loolee nag ka koy ay kàddu di Guy Marius Sagna député à l'Assemblée nationale bi nga xamante ne bii nag min nan kàddoom bu baax baax ci biir réew mi di Sénégal moom nag nooy xamle ne lii moo waral li nga xamante ne moo di woote samedi bi ak dimanche bi nga xamante ne bii moom la ñu dëgmal